almuttafiq alayha alkitab wa sunna wa ijma walqiyas wa min al adilla almuxtalif fiha alistixsan et alistiqra'i alistishaabu alasli charu man qablana et amalu ahlu madina alaysa kadalika walakin takallamna yani درسنا alkitab bi tafsilihi wa sunna kadalika bi tafsiliha wal ijma wal qiyas xata wasalna ila al qiyas al qiyas eh, wa arkanuhu al arbaa awalan al aslu wal farcu wal xukmu wal cilla mafhum wasalna ila al cilla wal cilla الآن نستأنف مسالك العلة ما يسمى بمسالك العلة masaalikul illa nag ci kocc rek buñ demee dañ naan mooy yoon yi nga xam ne ci la mujtahid bi di jaar ngir xam atte bi shaarix atte sunu boroom shaari' mal maqsuud bi shaari' allah subhanahu wa taala wannabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa alladi ata e, li tabliq mafhum li tabliq daawat arisala min allahi alaysa kaalika hakada e, masalikul illa kon mu yoon yoon yi nga xam ne ci la mujtahid bi di jaar ngir bu borom bi ne nangam daa araam walla nangam daa dagan mujtahid moom fan lay jaar ba xam yil la ji tax borom bi daganal mbaa araamal alaysa kaalika la ji tax borom bi atte lool lay gëstu te loolu mënta ñàkk ñu xam ko bu ko defee masaalik yooyu nekk yu bari ba ci jiitu mooy al ijma takallam na an il mooy ittifaaqu mujtahidil umma fi asrin min al usuri baada wafaati nabi sallallahu alayhi wa sallam ah ah fi amrin diinin fi amrin diinin baada wafaati nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañ ne loolu mooy ijma boroom xam-xam yi dëppoo ci masala sàngam ne masala bii kat illaam yi la ji tax yàlla atte nangam mooy nangam kon ijmaa danañ ko am su ko defee al amsila lu ci nekk rek amsila yi moo koy moo koy leeral eh, ijmaa bu ñu ko waxee taarif ñu taarif masalikul illa inda al usuliyin awalan masalakul illa bu ñu ko waxee ñoom mooy lan ñu ne mooy ma dalla ala kawni ma dalla ala kawni hada alshey illatan li hada alxukm illatan li hada alxukm masalakul illa rek jamu masalikul illa buñ ko waxee mooy loo xam ne dafay tegtale ne mbir mii lii mooy illay atte bii illa ji tax borom bi araamal lii mbaa mu daganal lii loolu mooy taarif bi eh, inda al usuliyin eh, mathalan eh, bu ñu indee am sile ci loolu ci ijma bi ñu njëkk a tudd mooy waxi yonent bi ne laa yaxkumu ahadun bayna thnayni laa yaxkumu ahadun bayna thnayni wa huwa gadbaanun wa huwa wa huwa gadbaanun bu kenn ci yéen attekat yi di atte ñaari nit te fekk mu mer ijma am na boroom xam-xam yi nañ ci ne lii mooy illa ji illa ji mooy xatbaan waaye dëgg dëgg dëgg xatbaan nag waxu xatbaan mooy illa ji waaye illa ji mooy euh, euh, tashwish tashwishul xadab bi am fii tashwishul xadab bi am Eh, bi am ci moom bi am ci àttekat bi xel mi dafi du nekk moo tax bu kenn ci yéen àtte diggante ñaar te fekk ma nga mer ah, la ko waral mooy xel mi day jaxasoo jaxasoo nga xel mi di jaxasoo moo tax illa joojoo tax borom bi araamal moo tax mu mu tere mu àtte kon lii ijmaa am na ci ak dëppoo amul kenn ko ci wute kon fi ñuy jaar yoon yi ñuy jaar turux yi ñuy jaar ba xam borom bi xukmu bi mu charia xukmu bi mu isdaa charia bu ñu ko waxee yàlla lañ jublu wala yonent bi ba ci njëkk mooy ijmaa ca lañ koy xamee ijmaa kon misaal bi buñ ci ñëwee laa mooy dalilu xadis boobu xam nañ ne laa yaxkumu ahadun bayna sinayn wa huwa xadbaan tashwiishul xadab lil fikr la ci jublu say xalaat ci boppam dalu dal li annahu yu addi ilal mayl anil xaq ndaxte li annahu yuaddi da ko yóbbee anil may eh, yuaddi eh, ilal mayli anil xaq day tax dootu mën a àtte dëgg day jeng walif dëgg mooy tax bu booba eh, ñu di ko tere loolu kon ijmaa moo ci jiitu ba ca topp mooy nassu sarix ijmaa awalan taniyan mooy li ñuy wax an mooy ñaareel bi atte bi yonent bi atte wala sunu borom atte ko ci alxuraan dafay ànd ak benn texte buy leeral ne lii mooy yilla ji ah. misaal e, li tawdix e, lu mel ne ifaal kada li illati kada defal nangam ngir sababu nangam wala ifaalu li sababi kada def ko ngir sababu nangam waaye nag moom nasu nasu sareex bi daa am yu koy gunge yoo xam ne ca lañ koy xàmbe yooye bokk na ci min ajli min ajli dalika foo ko gisee ci alxuraan ak sunna min ajli da benn na ngi noonu buñ ci indi misaal rek mbir mu gën a gaaw gën a leer min ajli E, am na fu mu waxee ne min ajli dalika katabna ala bani israil min ajli dalika katabna ala bani israil kon min ajli daa bañ soxla woon a ngi noonu lii mooy yi lay bi tax mu Euh, moo moo indi atte bi yilla ji tax mu indi atte bi kon benn ngi noonu ñaareel ba mooy kay kon yi koy gunge kay ca la bokk min ajli daa ak kay kay moom xam nga ko même ci waxi wolof buñ nelawoon demal sa kër bàjjan sàngam waaye la yóbbu mooy ngir nga xool sa doomi bàjjan jooju ba xam man nga ko denc sax bëgg nga ko am déet mm-hmm. yilla jaa ngi noonu la yóbbu kon boo ko laajee yilla ju tax ñu ne la dem fa mooy kay nangam ngir nga takk sa doomi bàjjen jooju alquran indi na ko kay laa yakunu duulatam baynal agniya minkum ngir alal ji bañ a nekk loo xam ne day wër rek ci diggante way koomal yi li kay laa yakun duula baynal agniya minkum xaalis bi nekk ci loxo yi patron yi rek ñu koy jokkalante way am yi way ñàkk yi duñ ci am dara la ji tax mu tere loolu bëgg ñu joxe mooy kay illa ji boo ko doon laaj lan moo tax borom bi digle lan moo tax borom bi tere lii ah digle joxe bàyyi nay mooy kay illa jaa ngi nii kon yilla ji dañ koo nassal daa amul texte ci ci nas bi li bi di digle xokkumu bi xokkumu bi ci boppam da cee am nas ba tey bokk na ci min ajli daa kay idan tamit ci la bokk idan idan la adaqnaaka dexfal xayaa dexfal xayaati idan idan la adaqnaaka difal ayaati ca suuratu Isra kon xokmu bi mu àtte fii yi ji mooy idan buñ ko doon laaj dañ naan dañ koo nassal lii la ñuy wax lu ñu nassal nassu sarix loolu mooy nasu sarix zaahir tamit li ñuy wax zaahir kon nas imma mu nekk sarix yanqasimu nas ila qismayn ay gaay yoo xam ne moo koy wane ay ay yu koy taayin yu koy ràññee laam moo ci jiitu laam allaamu zaahir bi ci wane masalikul illa lam moo ci jiitu kitaabun anzalnaahu ilayka la wax dane kitaabun ab téere ngoog anzalnaahu ilayka wàcce nañ ko ci yow yonent bi lu tax li laa ma ngi noonu li tuxrija annaas min adulumaat ila nuur li tuxrija annaasa min adulumaati ila nuur ab téere ngoog boo xam ne wàcce nañ ko ci yow yonent bi ngir nga génne nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer laab gi buñ doon laaj yilla yi tax ah borom bi wàcce téere bi di alxuraan yilla ban yillaa tax yàlla wàcce téere bi nga ne ngir mu génne ngir nga génne nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer kon la ji leer na fi waaye yilla ji du nas sareex waaye dafa nekk daaxir waaye li ko fi wuutu mooy allaam ak baa baa kadalika e, min almasalik fa bi zulmin albaau lu mel ne bu ne fa bi fa bi zulmin min alladina haadu xaramna min alladina haadu xaramna alaykum tayibatin uhillat lahum yu neex yu teey yi nga xam ne suñ borom daganoon daganoon na ko ci ñoom bu yàgg waaye mujj ko araamal la tax araamal ko tooñ bi ñu nekk ñoom ñoom yahud yi kon baa gi mooy illa bi moo wane illa bi ci zahir moo wane illa bi ci zahir ci sababu tooñ bi nga xam ne yahud yi eh, tooñ nañ ko seen bopp wala tooñ nañ ko yàlla lam leen jigaloon defulu ko wala tax wala wàcce na seen seen bopp kon gis nga ne baa kon ak ci zahir la mooy illay yàlla atte yàlla wala atte foofu et faa ci la bokk alfa faa tamit ci la bokk hmm? hmm. alfa ah ci zahir bokk faa faa xadis bi na xam ne Imraan ibn Xuseyn Imraan ibn Xuseyn radiyallahu anhu moo ko wax moo ne saha fa sajada saha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jamono joom fa sajada mu sujjood eh, baada salaam wala mooy bi muy julli takkusaan julli ñaari rek sëlmal xibaar bi nga xam ne ko ndax julli dañ koy wàññi léegi wala da ngaa juum mu ne ko yëpp benn amu ci laaj ko saxaaba yi gestu laaj ñu ñu ne ko wax na dëgg. mu jóg mottali yeneen ñaari rakka ba mu paree mu sujjoot ah baada salaam ngir wax dama ko wax ak seen mën dama ko seen mën muy ziar te ku dolli da ngay sujjoot baada salaam ku wàññi sujjoot xam na salaam ko boole ko wàññi sujjoot xam na salaam kon. yonent bi jamuuj na saxaa juum na sallallahu alayhi wa sallam ci julli fa sajada daal di sujjóot kon xam nañ yëlla ji tax mu sujjóot yëlla ji lu mu doon kon faa gi fii moo ñuy ishaara moo ñuy junju moo ñuy wan direct yëlla ji tax sujjóot bi am kon am nañ ci zaahir laam baa am nañ faa ladaynaa eh, baa wal laam wal faa wa inna walla in ak il léeg-léeg mu ñëw waaye bëriwul lu ñu ko indi di ko boole ci masaalik daax waaye kon eh, nañu doy loo yooyu bi insha allah léegi taalis bi mooy imam dilaalatul imam mooy illa masaaliku illa ban lañ koo xamee ci junju du leer waaye ci junju lañ koy xam kon li tax charia digle mbaa mu tere xukmu bi ci boppam ñu ngi koy xamee ci imam wilaadatul imaam muy muy eh, xam direct ci kaw sallallahu alayhi wa sallam inna ummi ma tadu alayha nadaru xajjin afa axajju anha sama yaay dafa faatu te nadaroon aji makka ndax mën naa koo ajal ti law kaana ala ummiki ala ummika daynun akunti qaadiyatuhu qaalat naam qaala fa xujji an ummuki fallahu axaqu bilqadaai daf ne sama yaay dafa amoon dafa nadaroon pour aj yàlla dogal mu faatu jotu koo def ndax mën naa koo ajal alayhi salaatu salaam ne ko waaw bu fekkoon daa amee bor ndax bor boobu danga ko ko fayal mu ne ko waaw ko fayal mu ne ko nag borub yàlla moo ëpp àq ci fay xam nga ne loolu wasfu bi xokkumu bi mooy eh, danga ko war a waral da ko war a ajal d' accord da nga ko war a ajal yónni ku ko ajal mbaa nga ajali ko sa bopp ngir mu fay nazaram boobu waaye gis nga lam ko la lam ko lëkkaleel mooy borub àdduna bi la nirooleeg borub yàlla borub adduna bi la nirooleeg borub yàlla fii nag lii la ñuy wax dilaalatul imaam junj bi fi nekk mooy su fekkoon eh, bëgg ko wax ne ko yaa ko war a mën nga koo ajali lim fi indi du am benn jariñ bu boobaa kon boobaa ñaar yooyu day iqtiraan daynu daynu daynu dunia ak daynullahi subhanahu wa taala kon ñaar yooyu day iqtiraan nadir bi ndend bi mooy lim nirool loolu lay loolu lay loolu lay wane foofu bu ko defee moom it am na am na ay ay ay mumayazaat yu ñu koy ràññee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee daa dégg daa dégg wasf aw melo rek la dégg ci mbir daal di joxe atte daal di isdaam mooy lu mel ni waa ji daa dikk ci araab yi ne ko waaqaatu ahli fi nahaar ramadan fa qaala sallallahu alayhi wa sallam i'tiq raqabatan daa dikk ne ko damaa joteeg sama soxna sëyeeg moom ci bëccëgu weeru koor yonent bi ne ko goreel ab jaam waa ji araab yi la ab kaw kaw la waaqaatu qaala mu ne waaqaatu أهلي في نهار رمضان yonent bi fa xaala yonent bi ne ko i'tiq raqabatan goreelal ab jaam léegi lan mooy yilla ji tax yonent bi ne ko goreelal ab ci imaa lañ koy xamal di laal imaa ci junju ndax doon gi mu doon kaw kaw arab bi moo tax ñu ne déedéet doon kaw kaw mu taxul muy goreelu jàpp lii sifa la wasfu la buñ gis ci biir kaalika waaqaatu ahli fi naar amat dama sëy sama soxla ndax sëy gi rek mooy tax ñu ne ko goree la ndax jàmm déedéet loolu day la ci e bëccëgu weeru koor wi waaw kay xotti gi mu xotti waru may bëccëg mooy yilla ji tax yeneen bi ne ko goreel ak jàmm lii nag dafa nëbbatu waaye neexut a xam lii lañ daan jilaala moom xam ne yilla ji moom daa nekk loo xam ne ima ci junj rek lañ mën a am te ndax awsaaf yu bari dajaloo te awsaaf yooyu benn taxul mu isdaar xokkum la tax wasu ba ca tax mu isdaar xokkumu mooy xotti gi mu xotti waroon may bëccëg weer kon loolu dañ cee dégg ne eh, dilaalatu ima boo xam ne yeneen ci bi dafa dégg ak wasfu rek daal isdaar xokkum waaye muñ tey bi moom bu dikkee mënta gis ci kaw yonent bi tudd taayin benn wasu daal wastu bii moo tax arab yi gi doon moo tax ma ne ko reelal jàpp yonent waxu fi dara waxu fi dara luy tax benn illa la fi leeralu lii wasu la lii wasu la waaye waxu benn wasu tànnu ci benn ne lii moo tax léegi nag mujtahid bi bu dikkee ci dilaalatul imaam ci àqal ci lay xame ne ah xotti bëccëgu war may koor Ah, moo tax mënoo ko goreel ak jàpp ndax yépp gis nañu def ko nit doon na kaw kaw di jot mi ngi joteeg soxnaam nangam ak waaye day gis ne xëy na def di ko def ci bëccëg weeru koor di xotti warma ji moo yelle ji kon yonent bi foofu daa dégg directement foofu mooy dégg wasf rek is daa xokkum aywa te tuddul tuddul ay laja yi tudd sa bopp nag yow muj kon loolu boobu ci la bokk mel ne manu sharia mukallaf min fi'li min bi yaxsulu bihi tafwitu fi'lu axar matlub minhu sharia daal di tere mukallaf mu def jënd jëf jëf jooja bu ko waaye bi defee daa am leneen lu ko faat te leneen la koy faat moo gën a war ca moom moo gën a war ca moom lu mel ne fasaw ila dikrillahi wa darul baya ci suratul jumaa salaatu jumaa day beneen waajiba moom léegi nag bu jaayee ajjuma ji da koy raw bañ ajjuma ji raw ji raw ko moo tax mu ne ko mu ne ko mu ne bàyyi leen njaay mi bu ñu noddee noddu ñaareel baax da ni daaw thaani fi jumaa te ngeen dem ca ajjuma ja ngir bañ tafwid mu raw li léegi nag loolu tamit day bokk ci dilaalatul imaam foofu tere gi mu ko tere bàyyi aw ci waxtu ni daal jumaa innama huwa anna al bay'a yufawwitu xudurul jumaa fa law lam yakun li ma dallati tafwiiti la kaana al bayu loolu mu tudd ci texte bi daal ne fasxaw wadarul baya bàyyi leen jaay lii mooy dilaala ci imaam bi lii mooy junj bi fasxaw ila zikrillah wadarul baya léegi su fekkoon su fekkoon lii du illa bi illa bi indaale na ko waaye dañ ko ci junjaale day bañ waa ji topp jaay ma ba du mën a ba du julli loolu tax mu tere ko kon loolu dañ ko ci déggaale bi loolu la ñuy wax dilaalatul imaaba tey maanaam bañ mbir moo xam ne soo ko toppee leneen da lay leneen la lay faat moo gën a nekk waajib moo nekk awla ci lii nga tere gam koy tere imaaba junj la waaye lam ñu euh, junj ba dafay leer laaj ñi ca tey bokk na ci amsilatu dilala dilalatul iman mooy charia day indi benn xokkumu benn xokkumu rek waaye ginnaaw xokkumu mu indi ca loo xam ne ci ngay déggee ci ngay déggee yéen lañ uqtulul foofu ci dilalatul iman uqtulul lan moo tax borom bi di meray mushrikiina fii da nga fi dégg baatub shirk yéen la ja bokkaale gee tax kon xokk mu baa ngi nii xokk bi atte mooy rey la digle mooy xokk waaye la ñëw ginnaaw xokk ba ah da nga ciy déggee da nga ciy déggee la ja yéen la ja day ñëw wasfu day am sifa wasfu boo xam ne moo ñëw mubaashara baadal xokkum wasfu bi nag mooy shirk shirk ga moo tax fii bu waa dilaalatul iman ci iman lañ mën a xame ne shirk gi làqatu fii moo yillay mu digle moo yillay ji tax mu ne ray leen aywa day lu sew nag loo xam ne euh, dilaalatul iman moo ci gën sew bu fekkoon bu fekkuloon euh, lii di yilla ji indi gi ko fi indi du am benn njariñ indi ko fi indi du am benn njariñ bu dudoo yilla ji law lam yakun li anno illatuhu la kaana baidan boobaa Eh, la fayda la du am benn njariñ ba ca mujj nag mooy tafriq gi muy tafriq ñaari xokk mu ñaari atte atte yoo xam ne dañoo waroon a bokk mel ni mbir sa boro day xam ne wax naa bari am senatul imaam ba tey ci laa nekk tafriqu shaari bayna xukmayni bi waaxidin min arbaati umur misaalul awwal mooy ci bi ixtisaar jaala lirrajuli سهما وللفرس سهمين boobu bu njëkk xam nga charia ci xare ci fi sabilillah buñ koy séddalee góor benn saxam bu leer benn fas wi war am ñaari cër bokk na ci misaal yi dilaalatul imaam ba tey tafriqu shaari yonent bi wala suñu borom tàqale gi ñu tàqalee bay na xokkumay ni bi waaxi bi ñaari àtte yoo xam ne dañu war a doon benn mu tàqale lu mel ne góor gi daa xare daa war fas wi ànd ak fas wi di xeex ñoom ñaar ñëpp dugg ci biir tollu xare mu jox góor benn cër jox fas wi ñaari cër loolu dilaalatul imaam mooy àtte yi ci fa tafriquhu bayna haadayni alxukmayni bi haadayni alwasfayni law lam yakun li ajliyati kulli waxid minhuma la kaana baida aywa walmuraadu bil wasfayni fi haada almithaal mafhumul furas njàmbaa rek fas wi moo tax ñu jox ko ñaari cër aywa eh, ki ko war doon te jàmbaar la mut waaye benn cër lañ koy jox alqaatil mithaalu ñaareel ba mooy alqaatil alqaatilu laa yaritu ki rey bàyyam du ko doon loolu mu sikk sàkk góor a ngi ni jur ñaari doom kenn ki bëgg yàkkamti doonoon li tax mu ray bàyyam rey ci nga doon kooku moom dañ koy génne ci tarika bi du ci du dara léegi kee am ca te ñoom kon benn atte wala sharia daa taqale foofu ñaari atte ci benn loolu mooy lan ñoom ñaar ñu bokk leen jur ba pare atte yi bokk kii du am kii di am loolu yéen la ju tax sharia def boo ko xoolee gis ko mooy xatt al xatt illatul xatt li ci aqsaamu dilaalatul ibaala bokk illatul xatt moo tax ñu xalit maanaam eh, raaya ak charte raaya bokk na ci am silat dilaalatul imam al raaya bokk na ci al chart bokk na ci al istitna mu jeex mun dañoo bari wax de sañ benn bu ci <laughs> benn bu ci mi nekk misaalam di dapp ma joxe mu gaaw bu dee misaalum raaya wala taqrabuhunna hatta yatahurna bu leen jege jigéen ñi bu ñu nekkee ci mbarak bu ñu gisee mbarak xayda bu ba keroog ñuy laal hatta yatahurna nga xam ne bu ñu setoon sax ba gis di foofu ak xisatu bayda te seen boobu seen ñoo jotee ñoom na ngay jotee ñoom bala ngay seen jotee ñoom ñu lab ba pare hatta yatahurna fa tafriquhu bayna al mani min qur min qurbatihinna min qurbatihinna fi l xayda wa bayna jawaasi fi toxru law law lam yakun li anna tuura illatul jawaaz wal xayda illatul man la kaana baidan su fekkoon eh, bu jege jigéen ñi lu eh, dañoo làpp su fekkoon yilla ji nekkul ne suñu gisee mbërëb daa xaraam nga jege leen bu ñu laabee dagan na nga jege leen ku ne xam na ne ba keroog ñu laab loolu lañuy ñuy tekki mooy li ñu gis mbërëb lépp sa ñoo leen a jege kon illa ji ku ne xam na ne sobe si moo tax borom bi tere ko illa jëkk koo xool gis ko imaam da nag da koy jujj te biir tudd ko mu leer waaye illa jëkk koo gis koo xool gis ko da ngay xam ne sobe si lay bañ eh, nga cee jaxasoog moom am na yeneen amraat yu muy mën a juróom yu mel charte bi mooy ba mu ne addahab bi dahab wal fidda bil fidda wal burr bil burr wa shair bi shair wa tamr bi tamr wal milx bil milx matalan bi matala sawaun bi sawain yaddan bi yadd fa ida xtalafat al ajnaasu fa bayaau kayfa shitum ida kaana yaddan bi yadd su fekkee ajnaas yi xeet yi dañoo wuute nag sañ ngaa sañ ngeen a jaay leen sopp waaye weccoo pepp ak pepp ba pare tafaadul di ci am ëppalante di ci am kooku moom daa xaram tere gi ko tere ku ne xam na ne eh, xarar la cay bañ wor la cay ak naxe ella imaa la da ko junj ca biir waaye illa bu leeral leer istisna bi mujj mooy dilaalatul istisna aadatul istisna day nekk ca ca xukumu ba ca kii ba fa nisfu ma farattum illa an yaafuuna bu ngeen takkee jigéen jotu jox ko can jotu leen a joteeg moom fase ko genn wàllu can nga ñoo ko moom lu may da ngeen a jéggale illaa nag ca ngay déggee junj bi di wane ne loolu yilla ji waaw ah, lu mooy da ngeen a jéggal fa tafriqu bayna thubuti nisfu lahunna wa bayna intifaihi idan eh, ida afawna anhu law lam yakun li anna al afwa illatul intifai la kaana baid bu dumoon ak loolu illatul eh, eh, afu bi mu fi indi ci aaya bi du am benn jëriñ bu boobaa du am benn jëriñ kon yilla ji da ngay xam ne ah, looloo tax mu def ko illa an yaafoo eh, na lu may di ngeen a jéggale lépp nga jox ko ne ko eh, jox naa la lépp jëluma ci dara waaye bu dul loolu sañ ngaa jël genn wàll kon dilaalatul ima nga xam ne yin la ja ab junju la cee yooyu la boo ci boolee eh, tafriqu shaari bayna xukmayni bi waaxidin yooyu arbaatu umur la misaal mu njëkk maa ngi nii li ci topp nii boo jëlee ñaari benn la boo jëlee ñett yi boole ci talaata yi muy arbaa fa saara arbaa ta tafriqu shaari' bayna xukmayni bi waaxidin kon moo yooyu kon e, lii la ñu yoon yi nit ki di jaar pour bu yàlla ne wala yonent bi ni atte dara islam xokk mu ne nangam daa arab baa daa dagan fu mu ko teg lu tax mu ne daa dagan lu tax mu ne daa arab fu ko yàlla teg tax mu def ko léegi ci e, masaalik yooyu ngay jaar ngir mën a xam atte bi muy tey ci la jaar ngir mën koo génne yenn yi nag leer ba sit am na ci yoo xam nag dafa sew day dugg nag ci mawhiba wala xereñuk eh, mujtahid bi dëgg dëgg ba mën koo xam waaye daal ala kulli xaal nii lañ koy toppe sharia lu digle rek daanaka bu dul jeex taabudi rek am na ay la sabab bu tax mu digle masaali yooyu nag kon yooyu mooy turux yi eh, bi kulli ixtisaar kon Euh, noonu la ijmaa moo ci jiitu lu borom xam-xam yi dëppoo nga xam ne ay mujtahid te dëppoo ne lii la lii mooy illa bi nga xam ne ñu ci werante ba ca des mooy euh, nassu sarih texte bu leer bi ko tegtale ci biir ci biir wax texte bu leer bi tegtale ne lii mooy illa bi borom bi waxal boppam wala mu nekk xam nga nassu daa am ñaar sarih ak zaahir nassu sarih yi moo koy gunge min ajli zaahir fu borom bi waxee yaa ngi ne moom mën a jëlee daal rek déglu noonu ay ja tax mu isdaa xukkum loolu tax mu atte wala mu ne kay wala mu ne idal te yëpp gis nañ ci alquran bari na ci sunna loolu tamit am na daahir bu dee daahir bi nafsu daahir laam ak baa moo ci gën a siiw gis nañ ci alquran li tuxrija ah il lay li tuxrija ngir nga génnee annaasu min abdul waati loolu tax ñu wàcc téere bi ci yow gis nañ وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليك عليهم طيبات أحلت لهم ci sooratu Nisaa gis nañ ne ci baawu sabab ya li tax mu sa maanaam mbugale yéefar yi loolu xéewal gëm leen joxoon mu dindi la ko waral lu dara lu may tooñ gi ñu tooñ kon baa gi moo wane illa bi moo wane illa ji tax borom bi àtte loolu soo dikkee ci dilaalatul iman tamit nga xam ne day charia di tafriq de ñaari àtte yoona la bokk te duñ am na ci ñeenti mbir ci indi mooy euh, jox góor benn atte jox fas yu ñaari atte ngir njàmbaaru fas yu ba ca des mooy alqaatilu la yaritu ki rey baayam du dond te pourtant baay bi ñaari doom la juróondoo yoo xam ne yëpp ci yoon lañ judd ñoo tolloo ci ndono bi waaye kii dee doon bi kii du dond kii du dond ay la bi tax saara ne ko doo dond daa leer alqaatilu illatul qatl moo tax yin lay rey moo tax mu ne ko doo doon ko eh, bu dee ci raaya ak charte yëpp bu nekk nañ ci misaal eh, wala taqrabu nisaa fil maxiidi eh, bu leen jege jigéen ñi bu nekkee ci bërëb lu may dañoo laab lu may dañoo laab dañoo laab googu mu fi indi su fekkoon jublu ci àlla bi indi nga du am benn njariñ kon bala bala nga a jotee ñoom dañuy laaj charte noonu istitna euh, noonu kon ak aywa mais tamit fàtte naa faa gi faa saa sallallahu alayhi wa fa sajada yeneen bi daa jamuuj fa sajada kon yilla ji tax mu sujjóot mooy jamuuj faa gi mënu ko woon nag faa sabab ya waaw faa gi mënu ko mooy day mel ne mooy sabab bi tax mu jamuuj uqtulul mushrikina léegi xokk moo ngi nii def na atte léegi nag toujours ginnaaw atte ba da ciy indi il la jar kon loolu mooy euh, suñu dars insha allah ci masalikul illa bokk ci xiyaas mënta ñàkk ci xiyaas bokk li ëpp solo ci xiyaas ginnaaw bu ñu tuddee arkaanul xiyaas ba pare masalikul illa mooy la lay mën a dimbali ci xiyaas euh, daa xiyaas euh, wax nañu arkaanu qiyaas xukmu al aslu al faru al xukmu al illa illa moomu nag ci la lii bokk ci la masaalikul illa bokk ndax illa bi loolu tax nga mën koo xam dëgg-dëgg aywa